Reubeuss TV mooy suñu télé. la chaîne de la vérité. tasaare leen ko. tey ñu dugg fii ci Reubeuss sa famille toog say xarit say am di jàmm. tey loo loo yëg. non li damay dolliwaat sant yàlla rek quoi damay dolliwaat sant yàlla rek man damay ne comme ñoom ni mu koy waxee man la man la non man dama ne ñoom yéen la barki Serigne Touba parce que moom ma fi kenn man duma dara. benn <laughs> ndongo laa nii rek mais ñoom dañoo ñëw barke Sëñ Tuubaa bëggal ma seen bopp teexala yàlla rek a tax te ni nga koy gisee nii nii nii du luy émission bi moo tax de chaque jour fii nii la waaw àjjana la ñuy dund chaque jour saa boo ñu fekkee ñu suba si ñu ngi toog si bunt bi gudd ngoon bi ñu ngi si kaw loolu moo tax ma la doon ne mari saa bu ma yeewoo 9h maa ngi rëbës 21h laa génn parce que fii fii la lépp xewee quoi ah, waaw loolu la. kon dañuy dem gisanteeg sa ñaari wajuri yi. yaakaar ni ne ñoom témoignage bi ñu mëna def. Mhm. kenen mënu ko def. waaw dem jox leen micro bi ñom tamit waxtaan ak ñom tout mhm. inshallah rabbi inshallah comme ni nga ko xamé ñu ngi tok ak fu mu tonni wajur bu goor bu Baba jawara pap ñu ngi lay nuyu. waaw ñu ngi lay fay. gis nañu ni doomu rebeus nga yag nga fi trop sa jabo tamit fi lañ nekkon nek ba tay

barki yalla li ñuy jappalé baba yalla rek a xam mënuma wax wax bu sori comme niñ ko gisé ni ñu ngi tok ak tamit uh, waajuram bu bu jigéen waajuram bu góor mënu lon sànni yenn cadeau yi uh, ya boy ñu ngi lay nuyu alaykum di nuyu bu baax di len sante bu baax di len gërëm di ñaan yàlla daal yàlla may ñu ay ati at yéen ñii ñëpp ko fi ñëw yàlla may ñu fekk ay ati ati ati at waaw ci daraja yonent bi waaw. tey ngay waajuram bu jigéen ñu xam amour bu mu am ak coono bu mu am ci yow waaye yow mi di waajuram aussi bi nga amoon ci moom tey sa éducation njaboot noo ci taxawee woon. dama leen yar rek ci siraatal mustaxim rek yar leen parce que man sama yaay daf maa yaroon. sama yaay daf ñoo yar yar boo xam ne yar bu baax ba xam ne man sama sët sama doom yëpp xam naa nu ma leen di yaree ma nekkee fii Rebeuss wéet naa fi ndax man sama mbokk yëpp ñu ngi Kaolack waaye damaa xam nu ma leen waree ndax man ci voie biñ ma awale man ci laa leen awale ñoom. tey ban message nga mën a lancer tey jëmmale ko ci tey xale yu jigéen yi nekk seen néegu sëy yi yor sen njaboot war ko éduquer gis nañu tay yaru demb bi ak yaru tay bi dafa dafa am différence bu maga maga mag a ah, yaru demb ak yaru tay mom du benn ndaxte ñun légui tay lii xalé yi sañ ak lii ñu mun ak li ñuy def ni ñun mënuñ ko won am ñun mënuñ won def lu def sa yaay mo koy def loy wax sa yaay mo la koy wax ta légui xalé yi mën nañu def seen yef bam paré ñu ñow wax la wala lu ñu bugg ñoo utal seen bop te ñun instant bobu ñun amuñ won lool ñun lepp sa yaay mo koy mo koy def motax bokul waye nak nag ba tey ñi nga xamne ñom dañuy deglu seen wajuri ñom ñoom ba tey dañuy daal di jël nonu rek nga xamne ñom même buñ amaté dom seen dom jël nonu rek wa su fekkee ne yow nak mom jëlulo ni sa yaay mel nang woko topé do mëna yaf sa dom ci nonu wa ñu dégg ni te baaba wax nako am nañ tam ay témoignages dafa sonnon ci yow dala doon jappalé ci liggéey kër gi melni jigen tay yomi di wajuram ban sédé nga ci mëna apporter. ah. loolu moo ko may lii ndaxte loolu moom moom ba mu nekkee xale bu ndaw lu dëkk fële si wotu caameen moom su may dem port suba teel moom xale bu ndaw la su yeewoo suba teel su ma yeewoo su ma ko yee day jël kurus mu daal def si baat bi kurus bi sama mag bu góor moo ko moomoon mu ne ko may ma kurus dama koy def mu ne ko yow xale bu ndaw bu tal ne yow loo ko def mu ne ko may ma ko da koy def si baat bi su jullee suñuy dem ñu ànd suñ demee port moom mooy daw jëli bangi moom mooy boyal moom may rooti ndox moom moo def yëpp fekk rakkam bi kay xale bu ndaw la dama koy sàng ma teg ko moom bu jëlee bagage yi ba pare mu boyalal ma mu commencé di raxas lu ma jaay mu raxas lu ma jaay mu raxas bu raxasee ba nga xam ne heure entraînement jot na mu daw mu ne bu ma jox paas mu daal di daw dem GIA bu dawee ba pare bu paree mu ñëwaat fekk ma foofu lay lekk mu ñëw wala léeg-léeg ma jël taxi ma ñibbisi mu neen la nekk noonu la nekk noonu la nekk noonu la nekk ba mujj gi buy ñëw di raxas mu ne ma yaay ma ne naa mu ne ma xoole xale jigéen ñi niñ may xoole ma ne ko raxasal rek bu ñuy ñëw mu taxaw ba ñooñu romb di dem ci Saint Michel ci école bi su ko fee bu ñuy tourné comme ci montagne bi laa toogoon moom day daal di arrêté raxas bi ba ñooñu jàll mu doog a raxas ñiy jaay jën foofu paa yi jaay jën su ma leen yóbbu leen yóbbulee ki ñu ne yow ndey am yi ma ne naam ñu ne waaw sa doom ju góor ji ngay raxas loo lu tax ma ne ko ah man amul bàyyil rek mu dima dimbalam ñu ne yow yaa moom moo ñàkk da moom dafa waroon dem uti lu mu liggéey man ne ko pourtant day de moom day dem entraînement ñu ne dem entraînement lan kii di nekk fii di raxas bool ma ne ah day raxas bool daf may dimbali loolu mu doon def tey moo ko may lii tey lu dëgg mu ngi noonu. tey ban message ngay lancé ñi nga xam ne ne tey seen waajur mu leen wax ñu bañ ko def. ah ñooñu dañoo perte. xam nga tey bu fekkee ne yow tey loo liggéeyul comme tey léegi yow jiwuloo bu jiwuloo nawet jot yow jiwuloo est-ce que yow léegi bu góob jotee wala lii lan ngay récolter dara moom lu mu liggéey te ba nëgëni sii nag moom dina gë day gën a dem moom ak rakkam yeeg magam si kaw parce que lu ma neex moom moom la bugg lu neex seen papa moom la ñu bugg moom do boo waxee sa kàddu ne lii laa bugg balaa ngaa àggali wóor na yàlla ak dëkk bu mun ti nekk balaa suba mu yónnee ma ko. boo waxee man xam naa ne daal yërmande bi mu am ci ñun daal moom yàlla na ko ko doomam yi fay maa ngi koy ñaan ci daraja yonante bi sallallahu alayhi wa sallam kontaan naa daal ci ñi ma jur ñëpp dama kontaan si ñoom parce que am na nu ñu doon defee man daal kenn moom ma man boo ma nee waxal duma wax wala ma dem tëdd sama nekk lu dëgg waaye moom mi wax dëgg yàlla moom góor la de waaye bu boom daal doy moom daal tubaarkàlla macha allah daal tubaarkàlla macha allah. lu ñu neex rek lay seet lu ñu neex rek la bëgg lu ñu neex ndax boo gisee tey mu jënd mu wàcc fii dem ba maris bugguñoo gene bugg moom bu xasee ba ñëw ba nuyu mu si kaw ba ngoon mu wàccaat ñëw ba fii tàgguñu doog a demaat moo tax ñoom ñëpp jàmm rek la ñuy am xaytam yii nag moom dama kontaan si ñoom. ki ñu toggal ñu fii nag euh, di ndijaayam tey li ñuy wax rek euh, ndijaay mooy yaay tonton ñu ngi lay nuyu. maa leen fay salaamaaleykum wa rahmatullah yéen ñëpp ma ngi leen nuyu seen tour ak seen sant di jéem wax na ci Baba jawara Baba jawara man pour ma wax ci moom dama ci sawar parce que comme ni ko seen yaayam yi waxee nii ah, dañ ko war a ñaanal rek gërëm ñi ñun ñi ñoo koy gërëm parce que ñii ñoom li mu wax moom liggéey na ko bu yàgg loolu la ko yàlla fay moom ak ñaari waajuram bii parce que am na benn année dafa ñëw moon di portable daf ko kii ma ñëw mu ne mooy Baba portable bi mooy dafa seer. ma ñu ne ko mais paa bi ne portable bi dafa seer mu mën a ko ne bàyyi koog moom beneen jour mu ñëw mu ne ma sama yaay dama ko fekk ma takkal ko benn chaîne valeur bu bari sax mais duñ ko wax loolu daf ko war a def parce que yaayam la kii bi ma koy xam ba mu wax ne ku mu ngi joué ñaar cokkeer man Ousseynou Fall laa tudd ñu may woowee Père Wëcc ñu ñëw maa leen entraîné dañu ñëw stade euh, Assane Diouf Thierno Kandji mu ngi France ñu yor kadi xandaa du préparé ben centre bu ñuy wax Pamosi mu ñëw ne ma grand kaay dafa am benn boy boo xam ne. xool ko ci booy yi quoi man xaw ma ko woon sax mais match bi dafa di ma ne ko booy bu gàtt bële ma a ko jël ko am nga 5000 mu ne ma ko demal nga démissionnel ko mu dem démissionnel ko mu ñëw commencé football xandaal mais nag di ma neex ci moom kii danañ nax yu bari parce que dañu def ne baaba dafa réew dafa sol mais kii ku ko jege wu doo ko xam gis nga kii ni mu mel xam nga ma am na am bu ko neexoon mu bàyyi football. duma ko dégg stade doo ko jóge mu jóge vacances yëpp ne maa ngi dem Bali maa ngi dugg non doomam sax bu koy tudd kaamil lay wàcce fii ngoon mu def cant lan moo ko bu ko neexoon mu def ñeneen ñi mais du def loolu li may wax nag mooy ay xaritam yi ñooy ba ñu nee xale ba léegi ñoom ñooy ànd ba ñu nee xale ba léegi ñoom ñooy bari des na yeneen sax am na ñëwul kamu bi ko tuddee doom am na tuddee kamu doom. gis nga ñii ñeneen ñi si des nii kii tudd na ko doom Pape Diom ñoom yor ndoo ñii ay doom yu jigéen lañu ñu am moo tax tuddew ñu ko doom mbéy bu ñu amoon góor di nga koy tuddee parce que moom moo ko liggéey moo ko liggéey de man baaba saxalu ma dara mayu ma dara xoolal baaba dafa jógee euh, Séville ñu ne fële néeg ba fële booba néegu joueur yi fële la ñu ne woon boobu Pamosi la woon quoi ñu léegi ko moo daan ceebam moo daan añam moo daan ñëw ak yaayu añu yaayu kii booy tiim ko lekk mu jeex montre bi Jaguar la moom ma ko takkal valeur bi trois cent vingt cinq mille la kii juruma ko moom ma ko dama ko doon entraîneur cadet rek maa koy soog a wax ñëpp dégg ko valeur bi trois cent vingt cinq mille la ma ko may ba léegi chef yeeg léegi ñaata matul huit ans man boo gisee ma sawar ci wax ba mu nee professionnel bu ne saa yu nee dina ma andil blouson comme ni mu koy waxee fii duñ fi jóg parce que jour ñu ngi fii dafa am loo xam ne nag daf ñu ko defal mën ñu ko fay sama doomu seex bi moom moo ko yóbbu Portugal kii kii bokkuñu dara. fi la ñu xamantee rek ba pare nag dinaa ci boore wàllu gërëmel xale xale yi xale yi nga xam ne ñoo ne ci moom parce que xale yi man rëbës laa dëkk damay déglu nañu ko wax booy dañuy sibooru baaba nangam nangam xoolal am na jour boo xam ne ñoom dañoo commencé di bind si ba damaa def bàyyi leen li ngeen di def toog leen bu leen leen faale loolu ñi ni ñoo mel noonu mais jëmm ji ku ko topp wala boo ko xamulee da lay dugal safara baaba nit kese kese kese kese la xam naa ci dara maa ko moog foofu mun naa ko jur xam naa ci dara man doomu lébu laa am na kanam yoo xam ne boo ma ko wanee rek boo ma ko gisee damay dem sama yoon mais man mënu ma xëy laaj ko yaayam a ngi nii même bu nee à l'étranger saa yu mu ñëw nuyu leen soog a dem ñaay cokkeer parce que moom moo ma ko ji mayu ma million mayu ma dara mais dama gis ne ñi ñëw ci moom rek xale yi xale yi ñëw ci moom ils sont pas ñoom am nañ kër am nañ lépp mais ils sont dañu bàyyi seen kër ñëw ci kër baaba pare mu jox leen appartement ñuy fanaan mais kooku boo ko boo ko gërëmul kay bu ko xas ñaanal ko baaba ñëpp a ngi lay ñaanal am na ñoo xam ne mënuñu wax mais ñu ngi lay ñaanal li nga bëgg yaa xam yàlla na ko yàlla defal boo comme am nga sa ñaay wërëgu ngërëmu yaay waajur yow bu la neexee nga pooj ural pooj loolu la ñuy sàkku yonente bi bu ñu ñëwee ci mu ne ko ñaari waar yi bu ñuy dafa wax dafa wax ñeenti yoon yaay ba pare mu ne pàpp yaay mooy joxe wërsëg papa mooy joxe barke te ñii ñii xam na ne ñoom seetaanu loo leen seetaanu loo leen ñoo ngi lay gërëm di la ñaanal ñu la ñaan ci barke Sëriñ Touba loo bëgg yàlla na ko xam yàlla na ko xam yàlla na ko yàlla defal sa xarit yëpp ñu lay gërëm mënuñu wax nag ñu ne ma waxal leen ñu lay gërëm ñu lay sant parce que bu la neexoon nga romb leen fii dem seen léegi yow lu xew nga woo leen am na ñoo xam ne dañu rëy ñëwatuñu seen affaire la defuloo leen dara man xam naa defuloo leen dara ma rëbës laa dëgg 74 ba léegi maa ngi rëbës rëbës nag am na kër yoo xam ne ah seen doom yi duñu torox billaahi wallaahi taala du ñu sarax dañuy jàng rek mais duñu sarax parce que seen yaay moo ko liggéey dina ñëw nag bu nu yàkkamti maa ngi nuyu di leen gërëm di nuyu itam rajo bi parce que am na fi solo trop li may mujj nag mooy nga may mu tuuti rek ma wax ci affaire stade bi stade bi nga xam ne ñu def fa la ñu fa la ñëpp génne ay FBI yëpp fa lañ génne léegi stade bi comme ñun dañu koy delloo nañu dimbali ngir yàlla rek ñoom buñ ci xuloo xam la ñuy def dañu ko jëkk a tabaxal ba pare rek après leen di si topp na mais bu ñu xuloo ci stade bi bu kenn xas kenn nañu jàppante baaba ñu ngi lay ñaanal barke sëñ Tuubaa yàlla bëgg yàlla na ko yàlla defal allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallam léegi nag damay jox kàddu gi koo xam ne ne yaay la ci moom xarit la aussi ci moom yaa booy ñu ngi lay nuyu maa ngi leen di fay mën na fee gis mënuma wax waaye tey Baba Diawara mi dina tax ma wax damay gërëm sax yaay ma papam ba pare parce que lépp ñoom la Baba Diawara ni mu téye ndey Amy Ndiaye téye ko am noonu la ma téye diggante Baba ak Kamuñang nag buñ ci wax dañ fi fanaan parce que Baba dafa na tëf am taawam tudde Kamuñang ñëpp moom moo ko njëkki Baba Diawara mii dina ma may dina ma seet dina ma woo lépp lu mu defal yaam daf ma koy defal Baba Diawara mii kamu ñang bu génnee tey fii dem bitim réew moom moo yóbbu kamu ñang ko jox xaas bu takk mu dem jaawara yal na sa jàmm yàgg jaawa yàlla na la yàlla fay baaba jaabara yàlla da nga yokk ba yëg ko te baaba da nga yokk sax ba yëg ko barki démb baaba ba ma nga wooyee di ma seet na ma def man la baaba damay toxu nga ma meer foo jëm dama koy wax dama koy wax baaba dama koy wax nga ne ma man la damay damay toxu nga ne ma mère foo jëm man damay dem wakkaam nga ne ma doo dem wakkaam wakkaam dafa sori demal kër ga deuxième appartement ma nga fa nga jël ko nit bokk nag nit nday bàcc dafa ko baaba jaawara baaba jaawara waxuma sax li ngay defar kamu ñang baaba yal na la yàlla fay te baaba yàlla da lay fay de li ngay def nii yàlla moo lay fay jaawara billaahi wallaahi yàlla moo lay fay te su ma ne yàlla da fay rek yàlla da lay fay jaawara li nga ma defal man li nga ma defal jaawara barko yonent bi yàlla da lay fay billaahi wallaahi yàlla dalay fay jërëjëf jaawara jërëjëf jaawara jërëjëf jaawara doy nag ñu ngi toog koo xam ne ne eh, mën nañ ne beau frère am la toog aussi ak sœur tey yow yaay beau frère u Baba tey yan nga mën a apporter ci moom asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakaatuhu mbokk yi ñu ngi leen di nuyu kenn ku ne ci turam ak santam di jéeglu ci kàddu yi am na mënu mooy wax sax mais ñu jéem rek ndax euh, mbir soo ca bokkee ñu boole la ca soo ca waxee dina neex kon maa leen di nuyu ñëpp kenn ku ne turam ak santam di jiital nuyoo bi sama yaay maire Ndeye Amy Ndiaye jiite ak euh, sama papa Pa Ousmane Diawara donc euh, di leen ñaanal yàlla yàlla yàggal leen suñu kanam ñu dolli ñoo taxawu dolli ñoo jàppale ndax sant naa yàlla bu fekk ba ma duggee ci kër goo xamee nii alhamdulilah rabbil alamin yàlla nekk nit ñoo xam ne nit ñu ay nit la ñu ñu nitee yàlla yar leen su ma yàlla dugalee seen biir donc damay dolli sant yàlla. wéccuwuma lu ma doon duggee maanaam ci kër gi ndax jàppe nañ ma doom jàppewuñ ma goro doom lañ ma jàppe di ma xelal. di ma conseiller am ci man yërmande bi ma sëkk donc Babacar nag donc li may wax ci moom mën naa bari mën naa néew ndax man damay ndaw comme moom bëgg lu baax kon suñu ko yàlla su ma yàlla suturaalee ba ma gis nit kuy def lu baax damay sant yàlla di ko ñaanal li muy def moom gën koo man yàlla gën koo dooleel gën koo kàttanal ndax kat li muy def ku bëgg lu baax yéene nga ko ku bëgg lu baax yéene nga li muy def ndax li muy def génnul waajuram ay waajuram ay rakkam ay mbokkam ay xaritam ay am di jàmm te loolu mooy lu baax kon dañ koy ñaanal yàlla yàlla dolli koo jàppale dolli ko suturaal dolli ko yëkkati ba fa mu bëgg a yegg mu yegg fa. sama la de sama bu baax la. li ma jën a neex ci moom ak li may roy ci moom mooy dafa bëgg waajuram yi bëgg na yaayam bëgg na papaam daf leen di toppatoo bu baax bëgg na ñëpp dafa yaatu ku ko gis nii dangay fonde dafa bon wala dafa réew mais boo nekkul ak moom doo ko xam nit ku baax la daf ñu bëgg ba la bëgg moom di ñu jàppale lépp lu doom war a defal waajur defal na ko ay waajuram lépp lu mag war a defal ay raqam def na ko lépp lu raq war a defal ay magam def na ko lu mu war a defal xaritam ak ñépp da koy def man lu ma jën a neex ci moom mooy tey laa koy wax mooy ba mu tukkee yónnee xaalis premier salaire am sama yaay jënd ceeb diwlin lépp ñu teg ko ci digg néeg bi boobu sama xol bi dafa sedd kuy kuy kuy alaikum uh, mbok internetu rebus TV di profito uh, ci opportunité bi di nuyu waa Reubeuss di ziar di màggal waa Reubeuss yep di len nuyu bu baakha baakha baakha baakha baax a man la kamunya man la kamunya ma ngi fi ni pare ak sama njabot ki ma togal ni sax moy baba bu ndaw turandoo papa Babacar ñu profito def ben témoignage bu ndaw si baba mais bon. témoignage bi bon benn anecdote lay doon anecdote bi mooy illustrer en quelque sorte la personne parce que dafa am benn année bi muy nekk GA mu football ba fin du mois jot mu jot euh, salaire mu jot salaire am def li mu war a def jubal ci yaayam papa mag yooyu noonu def li mu war a def ak yëpp ñun xarit yi tamit mu def li mu war a def suñu digganteeg moom ak yooyu noonu yëpp ba xaalis bi desetu ko lu bëri yooyu noonu après muy ñëw jaar ci boutique bi xam naa foofu la réeree xaalisam mu ñëw di ma ko expliquer man ko jugal ñu dem seeti xaalis beeg yooyu noonu mu ne ma non ki ko for loolu mooy wàllam ci sama salaire ma ne ko ah, léegi li ma joxoon ñëwul ñu séddoo ko mu ne ma déedéet loolu yow yaa ko moom man jour boobu noonu damaa toog yéemu damaa jàng lu bëri te loolu daa illustré sa personne mooy nit ku baax nit ku yaru nit ku am yitte nit bu gëm yàlla surtout gëm yàlla gëm yàlla gëm yàlla gëm yàlla parce que baaw dañ doon nekk ñun dañ doon jàng ñoom ñi ngi doon football ak yooyu mais baaw dañoo xuloo sax ñun si jàng bi bu ñuy foo école nii ki di nga kajang wala def yenn affaire yooyu day xuloo ak ñun day xuloo xuloo mer da ngeen war a jàng da ngeen war a léegi yooyu noonu à chaque fois day nekk nit boo xam ne da lay booster si vers le haut sincèrement sincèrement léegi bon benn anecdote boo xam ne day reetaan la benn période boo xam ne dafa feebaroon ñu jox nag ay garab yoo xam ne dafa xaw a fort tuuti pour comme ça bu ko kan nané ba pare comme ça warul gennat quoi mu jour <laughs> ya. mu nan kare ba pare génnaat jour su ma jumlee guddi ajuma la woon balaa guddi ajuma di commencé si le mur daanu mama miir daanu ci kare lii ko tëddal ñëpp dañ taxaw di ko reetaan di ko reetaan eh. di ko reetaan ñu jël ko yóbbu guddi ajuma jeexee jël ko yóbbu ko néeg mu yew lu <laughs> xew lu xew di reetaan vraiment papa babacar nekk nit bu baax bu am diine bu am l'islam parfois du lépp li ñuy mun wax euh, euh, ci télé bi jaar jaar yu bëri na fi jaar bëri na bëri na trop mu am ay moment yu neex am ay moment yu naxari mais du lépp lañ mun wax mais wallahi jàmbaar la jàmbaar la jàmbaar la nit dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg waaw di profité plato plateau bi nii di ko remercier bu beri bëri bëri bëri bëri di ko remercier di remercier gars waaw ñoom ñi fa nekkoon ñoom ñëpp sama gars yi ñu lim bu ñu limee rek dañuy juum mais buñ ne ñi ngi remercier Pape Babacar rek Baba Diawara rek ñi ngi remercier waale ñëpp di nuyu ñëpp di siyaar ñëpp waaw di ko gën a ñaaxaat góorgóorlu rek waaw góorgóorlu rek góorgóorlu rek ndam moo frère defal barki boroom Touba te xam naa ne yaa ngi si tànk yooyu ñun gis nañ lépp ñu ngi gis lépp ñu ngi dégg lépp day gëna a baax day gëna neex barké borom Touba li ngay def ni barké Serigne Touba day hola suba nga koy comprendre yow nek ci rek bul jaxlé yow necc li ngay def ni borom bi dala koy fay sa xol borom bi bu la ko fayé mom billahi walaay do sonu sa njabot du sonu billahi yow defal doxalal foo jaar yoon la waaw day gën a neex di gën a day gën a yàgg gën a neex parce que borom baax nga yow moom yow moom gàcce ngaalaama quoi yow gàcce ngaalaama yow gàcce ngaalaama waa ji yow dundal rek man moom dama lay ñaanal nga dund yàgg lool sax waaw dem ba sa say sa njabot say dom di manam dila di dila di di fay li te borom bi da koy def inshallah rabbi wa yow bu ragal dara yow ne ci rek ya na borom bi gëna yok lepp lepp sawan bawan inshallah incha allahu rabbi waaw maa ngi jaajëfal ñëpp jaajëf bége. day day tuti si ñun mais dinañu jéem gorgolu rek. Baba rëbës xam naa ko depuis rëbës mais euh, si kaaw bi lañu la ñu amante contact boo xam ne dañul ba tey mooy 2012 la ñëw Sébi ma contacté ko doon seetaan journal gis ko ma contacté ko nekkoon sama liggéey liggéeykaay ñu ne ma benn sénégalais signé na ma gis ko muy Baba ma contacté ko ñu gisee bi ñu gisante ba tey mosuñoo tàqali ko amul benn yoon boo xam ne. ko nañ ko xana bi mu démé Adelaide té bobu man dafa waron fekk tamit man nekkat man ma waroon toppatoo mbir nekk ci yenen affaire euh, mais nit bu baax ngi nonu nit bu am diiné nit bu fonku wajuram waaw lépp loko ko wax rek dana la sama yaay lepp loko wax rek dana lolu rek lolu rek warna jangat ñu bari jeunesse bi sama sama sama classe bi ñi gëna a góorgóorlu ci si waajur yi nga xamné suñu teranga aduna ak alakhirah mi ngi ci suñu waajur waaw nekk na professionnel bo xamné li professionnel yi di def léegi du ko def moy boîte de nuit champagne baba du ko def wallahi alazim dama nek ak mom di ko di ko gis goudi ak bëccëg gis na ne musum ko gis mu dem boîte de nuit di def di jouer di def wallahi alazim azim waaw baaba foo fekk julli na waxtom bu goudé mu tek ay cantam déglu ko ci am na dem na tëddi lolou la doon dundu Espagne ci célibataire nak bala muy am soxna ci célibataire lolou la doon dundu baba ba mu amé soxna deuxièmement xana ma joxe benen anecdote bi mu footballee ñi abalé ko Valence

Euh, leneen li ma gën a marqué te ma triste ci sama si sama ànd ak moom mooy keroog bi nga xam ne dañ koy opéré dañ koy opéré mu yeewu ñi war a yeewu trois heures xaw ma quatre heures du matin dem clinique ba ma gis ko mu ànd ak dëggu ak gëm-gëm kat loolu rek mënoon na arrêté carrière wallahi affaire bi du question na teranga la dama doon football am na am naa xaalis football dafa metti billaahi booy bu ci football wala professionnel bu dégg may wax lii dina xam ne football du question ne euh, dugal bi ak di li ci laxatu moo bëri baaba dem nañu opéré ko maag moom ñu ànd ma ne ko gàmbaar boo demee nii demal nga Sénégal nga noppali mu ñëw Sénégal mais bi mu ñibbisee mënoon na jaare euh, bàyyi carrière yaram ne non non am naa li may am mais xam na ne njaboot da ko wër xam na ne am na ay nitam yoo xam ne tey jii nii bu leen bu bu góorgóorluwul rek dina ñaaw mu continuer di góorgóorlu saa waay dañ koy ñaanal yàlla defal ko sutura defal ko teraanga te te te may ko wér gi yaram ak wér sàmmal ko famille nit bu baax nit bu yëg nit. nit bu nit bu am jom. Diawara aussi ko xam ne ni xaritam la ami d'enfance am la euh, tey yan yan kàddu nga ci mën a sànni. oui maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp waaw di kontaan si tawaay bi di wax maanaam si tàmbali moom fu mu tàmbalee woon dama si bëggoon yokku lu ndaw quoi bu ñu gën a nekk tout temps ñoom chaque jour ñoo bokkoon benn kër rek mais saa yu añ saa yu doon pare si yaayam laa doon njëkk a añ rek suñu kër ndekki. yaayam da doon jaay si biti ay jën ay affaire yooyu noonu saa yu ma xëyee man fa laa ko doon jëlee te suma kër ñàkkul woon dara mais maanaam seen ubbeeku papam bu mu nekkee xale buy jënd yëre alaaji ak man daf may jëndal maanaam bu ñu xëyee tamit wax ak li ñu doon bi ñuy tuxu ñoom ñu dëkk caamen yaayam di dem di port te doo xëy suba teel dem entraînement dem ba foofu jàppale ko maanaam li yëpp confirmation la quoi lu ñu mérité yaayam dafa baax papam dafa baax moom itamit Baay Faal la lu ñu seq ëpp na comme lu ñuy wax nii leneen la quoi du lu ñu mun expliquer quoi sans parole day dox bu ma waxee daf may dëgg su ma waxee daf may dëgg waaw li si kanam xam naa mooy dàq quoi man daal lenn laa xam ne dama ko doon recommander saa yu ñëw dama ko koy wax man sama dama part personnel li ma gis mu wane ko ci football lu rafet lay wane de mais dañu dañuy dañuy doon ñëw moo wane ko yow li ngay wane si match bi si terrain yi li ngay football mën nga lu raw lii man pour boog baa bu ma xam te da kay gis ñuy football ma sha allah ku nak di ko tàggate mais man pour man talent bu ma gis ci mom mu non na wone lu rawli mais xeyna yalla ni la ko dogalee tamit quoi moy premier Sénégal premier Sénégal bu dugal contre Real j'ai ay match mais xeyna yalla moko dogal ni quoi xeyna yalla dina ko def say dom wala say ay wala si ñeneen ak ñeneen mais billahi talent dama koy sédal de moy gis na talent am ëpp na lii parce que man ñoo jëndo ka kat ñoo jëndo senior ñoo bu ñu nekk tuutànk ñoo doon jëndo ci tali bi ay affaire yooyu yëpp ma xam man lu mu mën bu mu nekk espoir genre rek di koy yéegal ñoo fa nekk woon mu woo ma fa ba yóbbu ma fa ba ñu dem senior yooyu yëpp mooy loolu quoi lu la waaw. di ko ñaanal tamit quoi. tey am na ay souvenirs. ay yëpp fii nii. néeg loolu dund quoi. lu mu dund néeg bu mu saan ñëw fii nii. dem dem baal dem fenn saa yu ñëwee bay ñibbi ñun ñii ñëpp ñoom nu ma koy ñoom base ñoom Kamuña ñoom Jo ñoom Matar yeneen gars yëpp chaque jour every time nooy nekk néeg ba. am na instant sax dañ doon dem ba ba guddi dañuy nokk si si day toog nii di nelaw bàyyi 5 heures du matin mais duñ dem fenn ba heure ñibbi jotam mu dem ñibbi musul gëm ay baal ay boîte wala affaire yooyu noonu musuma ko woo nag neexul lii wala laa mu teg si baat dem na ba ñun ñëpp si biir rusante côté boobu dafa am parce que ku nekk da ngay wóor ne jox na la cër boo xam ne doo ko wax dara mu teg si baat doo taxaw nee eh, ay booy boo ko téléphone neexul lii mu araftu la wala wax la lakk sulu noonu da ngay dem ba sibir biir saa yoo après da ngay am kersa sibir lu ngay doxal ak mom parce que da ngay woon ne bu mu la wara jox jox na la ko. ki ñu jox kàddu gi di neena gorol la ci mom mag la tamit ci mom mu ngi lay nuyu. assalamu euh, alaykum ñu leen di fay euh, Reubeuss TV ñu leen di fay di di bég ci yeen di contane ci yeen vraiment ñu leen di suivre seen liggéey rafet na ñu ñaan yalla suñu borom mu gëna yaatal mbir yi ba yi ko gën a kawe ci inshallah tay ñu ñëw fii di wax ci Baba jawara tay yeen témoignage nga mëna apporter. ah lool de Baba de mom geej la mom mom mom geej la ko bu ñuy wax fi ba suba du jeex te xamna ne du ko mate xana ñuy wax li nga xamné mom mënu ñak waru ñu won wax sax parce que bu suñu waajur yi waxee rek ñun ñu ci tek sax baat donc suñu euh suñu euh Euh, per Wëcc euh, li muy wax mëte na lépp tëj na lépp yaayam li muy wax fii euh, mëte na lépp mais dafa am yu des yi des yoo xam ne ni bu ñu doon wax fii ba suba du du jeex donc baaba yàgg na rëbës man yàgg naa rëbës xaw ma ko woon sama jigéen bon sama xarit aw kan Gueye moo tax ma xam baaba parce que baaba bëggee doomam pour takk ko mu mama kooña mako yar boobu xamul baba donc euh, bi mu koy tàllal si jaaro jama diko ko takkal si ne sa doom la bëgg man la fa fekk ñu nekk vraiment muy sama jigéen bu baax mu bàyyi la mako ko ñu may ko mu bàyyi la mako ko donc jox ma léppam vraiment mu rafet bay bëgg a dee waaye ci boppam xaw ma moo xam lu mu gis si man man xaw ma nee na ma euh, goro bu loolu dafa nekk ci biir ba pare waaye man maa lay def euh, sama mag ma laa def sama mag dama bëgg nga jàppee ma rakk ba bokkal ndey ak donc maire bi na ma alaaji maa ko jur maa jur mais dama laa def sama doom bu ñu ñu adopté ma noonu ci biir kër gi sërëm yi Aïcha Ndey Awa Kia waa kër gi yëpp wax fa dëgg yàlla ñu mel ni dañu bokk ak man ndey ak baay vraiment ñu ñu sama doom téye bu téye bu téye bu rafet ñu muñal ko fital ko ba ba mu yegg ci fii. Euh, asalaamaaleykum chers euh, internet comme ni nga ko gisee depuis ce matin ñu ngi fii ak euh, Baba Diawara l'international sénégalais wër waxtaan ak ay mbokkam waxtaan ak famille yëpp. fu ne fu ñu wax leen nag fu mu toll nii ñu ngi si cappaandaw ga émission bi mën nañ ne l' émission tire à sa fin mais balaa boobu dañuy waxtaan ak koo xam ne ne xam nga soo duggee ci kër moom mën nañ ne caat yee ci ëpp solo caat ñu ngi lay nuyu bu baax. maa leen di fay di nuyu ñu fi teew ñëpp. Euh, Baba sa grand frère la. tey yan témoignage nga mën a apporter ci moom. Baba de nit ku baax la ku bëgg nit bëgg ay rakkam bëgg yaayam papaam. surtout ñun ay rakkam daf ñoo bëgg torop lu ñu neex la ñuy defaral lu ñu bëgg suba ba ngoon baaba daf ñu koy defaral te ñun dañoo am jëkkër mënoon na xool ci suñu jëkkër yi lu ko laaj daf ñu koy def te du xool ne ñun am nañ jëkkër xam bu doon keneen la mën na ko xool mais xoolu ci loolu yëpp lu ñu ko ñaan suba ba ngoon mu defaral ko surtout man man moom dama ko sonal chaque jour dama koy woo baaba lii laa soxla lii laa soxla si saasi lu ma nee sa xaara ba suba wala lii wala laa ci saa si la may boole kenn ne ma demal si kooku mu jox la te xam nga loolu yombul moom moom daf ñu teg sori daf ñu bëgg bëgg sama yaay lu nekk la ñuy defaral ñun moom dañ koy sant di ko gërëm yàlla mi am fay dañuy ñaan yàlla fayal ñu ko doomam yi màgg ba fay ko lu ëpp mu ñuy defaral nii parce que ñun mosuñu bëgg dara baaba bañ mosul am lépp lu ñu bëgg su booba ngoon daf ñu koy defaral kon ñun xam nga ñun amuñu fayam yàlla rek moo am fayam dañuy ñaan nag suñu borom fay ko loolu lañ koy ñaanal di ko ñaanal gudd fan ak wér. Jana. kàddu gi Baba Diawara mu tëj moom tamit Baba tey yendu nañ ak yow. ñëw fii mën nañ ne mooy uh, sa diwaan. Mm-hmm. fii mooy diwaan bi diwaan bi. kër gu mag kër gu mag gi fii la sa gars yi di daje. Mm-hmm. l'émission tire à sa fin tey ban kaddu tey gis nañu ne joueur professionnel nga. Mm-hmm. boo yu bëri dañoo aspiré à être des des tey ban message nga leen lancé d'abord. waaw déjà dama leen di remercier. si tew bi ngeen fi tew depuis tey suba ba tey ñu ngi fi loolu rafet la mun nga ne bo am na ñeneen ñu ñu war a mun a yitteel mais da ngeen bàyyi seen yëpp ñu àndandoo tey bokk rëbës bi warandoo fépp waaw loolu dama leen ci jaajëfal bu baax a baax bon comme côté bi ngay waxee noonu jeunes yi man si loolu laa dëkk à chaque fois man jeunes yi dama leen di xool lépp loo xam ne loolu war naa leen si mun a encourager ñu jéem a gën a jëm kanam waaw mais dana dem dafa am si affaire yi nit ki lu mu la encourager encourager yow yaa war a njëkk mën a motiver sa bopp gëm sa bopp waaw à chaque fois comme ni ma leen di waxee nii sama raq yi nekk fii nii loolu laa leen di wax chaque jour saa su ne da war a gëm sa bopp wan ni li ngay def danga ko bëgg ah loolu moom boo ko defee même affaire yi bu sottiwul fii ak si kanam yow di nga toog ne ah man def naa lépp li ma mënoon waaw saa su ne gëmal li nga euh, li nga doon ak gëmal li nga li nga bëgg waaw man message boobu laa leen di jox ko euh, ñu gis ne ne ñu ngi fii ci benn quartier populaire bu ñu nee Rebeuss. Mm-hmm. te vie sociale bi parfois demeewul noonu. Mm-hmm. est ce que am na ko souligné ne yaa ngi def ay jéego di dimbali ñu bari euh, tey est ce que am nga ay projet yoo xam ci booy yeeg affaire man lolo ya naa si lay dox tey jii su ni man gars yi ak booy yeeg ñëpp raw waaw si lolo noonu projet yi comme ni ma la ko waxante suba man lip lu may def du bugguma ko pour man kese dama koy bëgg ñeneen di si gis seen tamit. maanaam mun naa ci wax benn déjà man maa ngi am benn projet boo xam ne jënd naa tool loolu bëgg naa si ñu bëri gis si seen bopp waxuma feneen mais fii si samay nit waaw maa ngi si ay projet yu bari maa ngi si ay projet di jéem a xool nan laay jéem a euh, yóbboo ay booy placé leen si ay équipe ak nu mu mun mënta doon dem yóbba ki ñu liggéeyee wala genre affaire yooyu noonu maa ngi si quoi mais xam nga wax dafa baaxul quoi waaw lépp dañ koy jéem a def si suuf xool ñaan yàlla mu sottil ko quoi tey sa mot de la fin lay wax tay ci Reubeuss TV waaw di ñaan yalla rek mu am tanku kanam parce que li dafa rafet li day jëmele koñ kanam wa te ñun li lañu am ñun ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi war na Serigne Touba li ñëpp ci wara japp man dal maa ngi ñaan te leer na ma ñi nekk fii ñëpp ñu ngi ñaan li gëna jëm kanam bañ koy sentu fenen wa li rafet na trop vraiment. kon cher internaute cher sénégalais d'ici d'ailleurs ñu ngi remercier ñëpp ñi nga xam ne ne euh, tey yendu nañu ak ñun depuis ce matin dugg di génn di remercier sénégalais yëpp di remercier nag aussi waa Dakar Plateau mais surtout waa Rëbës lii duñ ci yem bés bu ne nañ jóg xool ñi nga xam ne fii ñu ngi ci Rëbës démb am na suñuy mag yu fi nekkoon lim naa ko ci début émission bi lu ci mel ni Lamine Diack ay Habib Thiam euh, ay euh, Kantra Koulibaly ñoo xam ne ne defoon nañ fi ay jaloore parce Rëbës. moo nekk ci xolu ndakaaru rëbës image bi ñenn ñi bëgg ko jël di ko saltel dañ koy bëgg a dindi parce que amuñu lu dul rëbës jeunes ñi fi nekk jamono ji nga xam ne ne ci domaine bu ñu mënti nekk wax ñu rek ci football mais domaine bu ñu mënti ne ñu ngi béy seen waar ngir ëllëg kenn bañ leen yàpp te duñu tàllal ci kenn dañ dem fekk leen foofu génne leen waxtaan ak ñoom parce que ñoom la ñu am di remercier aussi Baba Diawara mi nga xam ne tey moo ñu ubbi les ñu waxtaan ak moom waxtaan ci carrière waxtaan ak famille te dinañ ko def ak ñëpp nag te dina dox daje jox dox dig daje bientôt incha allah jërë ngeen jëf. Reubeuss TV mooy suñu télé. la chaîne de la vérité. tasaare leen ko.